mbokk internet yi ma di nuyu di leen dalal di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi nga xam ne moom mooy couple Babacar Gueye ak ki nga xam ne moom mooy boo xam ne bëri woon na coow ñëpp di ko coow fi nga xam ne moom mooy Sénégal ci diggante moom Babacar Gueye ak Racky Aïdara ak ki nga xam ne moom mooy Marie-Louise Diaw ñi ngi ñuy xamal ne couple bi daal dinay tas divorce daal dinay am après trois mois de mariage mariage boo xam ne yàggul dara information bi nag ñi ngi ko jot ci waa waa diaspora 221 ñoom ñoo ko daal di publier fi nga xam ne moom mooy seen site loolu nag nekk benn information boo xam ne mi ngi concerné ki nga xam ne moom mooy Racky Aïdara nekk fi actrice ak Babacar Gueye nekk footballeur ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp metti point com ngeen am information yi cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di permettre ngeen mën am xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox nag rendez-vous beneen yoon ci ma metti point com ak yeneen actualité